dafa projet bu am solo parce que dañu bëgg indi euh, bayum gerte mais ci beneen fànn maanaam gerte dañ koy bay duñ dépassé toog mais lii dañ koy euh, maanaam li ñuy wax culture euh, arachide irrigué la ñuy doon maanaam dañuy jël jël si dex gi di irrigué mbay gerte bay gerte loolu lañ bëgg a def. assemblée générale bi gannaaw ba ñu demee waxtaan ak nit ñi bañ ñu d'accord projet bi il fallait ñu créer une coopérative parce que coopérative ñëpp xam nañ moo gën a wóor parce que coopérative ñëpp si bopp. coopérative ñëpp ci yem ñu créé coopérative bu am doole ci waalo maanaam ci vallée bi coopérative nag moom lañ taxaw loolu taxawal tey ci loolu lañ nekk allah yëpp beneen étape bi mooy dañu fas yéene incha allah dem commencé bi une phase pilote commencé ak 300 hectares bi xam dañ ko war a mettre en bu war commencé war commencé bay waaw assemblée générale bi ni ñu ko gisee vraiment commencé na euh, sous de bons auspices commencé na bu baax te bu continuer bi yaakaar naa dañuy créer coopérative bi coopérative bi daañu ko créé waaw gunge bi rek mën nañu ko tàmbale ne déjà parce que le fait que direction régionale développement rural teew si assemblée générale constitutive déjà loolu baa la si gunge bi mais bu weesoo loolu accompagnement yi si war a am yëpp am na dana am parce que euh, coopérative bi mi ngi si vallée bi vallée bi mën nañu ne euh, service yi mel na SAED mi ngi fi nga xamante ne dañuy accompagner

jiit si si collectivité jamono juddoo ndax dañu seetlu jamono dafa ne commune boobu si bi si biir orientation aménagement euh, dafa bare ay canal bare ay dépôt commune la bu nga xam irrigation bi dafa mag mënoo dox ñetti kilomètres gisoon ñu gisoon nag ni suuf yooyu dafa baax trop pour mbayum gerte donc bu ñu organiser nit ñi ñu gëm ko nar si dem euh, daañu am yaakaar ni ëllëg daal vraiment xel dina daal